wasaare booy. wasaare. booy gars yi. mbërë ngi noonu ci biir waaw ah, Reug ngeen gis noonu moo sol sorte bu noir bi am ay trait blanc nekk borom yére bu rouge Thank you. na wala xale bi saaku dina toog ndeysaan Thank you. Sëriñ daanaka yëpp a génn ak moom Doole dégg nga xale yaa ngi woy naan Amadou Doole ah amul yoole

wala xale yi ñun xale yaay noonu ci ginnaaw yeneen xale yi xale yi sax dañoo génn ak seen xale yi sax ak seen i gaal ci ginnaaw ndeysaan xoolal ma lii Thank you.